production présente. Euh, la may wax ci gaynde yi équipe nationale na gars yi nan bàyyi liggéeyante bi bàyyi xeexante bi da ngay gis sa doom nekkoon ci équipe bi wala sa jarbaat wala yow nga nekkoon staff ci équipe bi nekkatoo ci doo bëgg équipe bi dem loolu baaxul na leen yéenante jàmm. waaw yàqal nan ko bàyyi. équipe bi waaw non déglu ma bul wax ay Covid loolu lépp ay mbir la nan bàyyi li ñuy def te xoolal ñun équipe nationale bi coupe bi su fi ñëwee ku ñëwalul Macky Sall ñëwalul Matalab ñun la ñëwal doomu réew bi neen yéenante jàmm waaye àdduna amul solo yàlla na la yàlla defal jàmm yéen jërëjëf. production présente.